UCAB FM. li gën a ci yéenekaay yi. Papa Saer Mbaye. simili wàllu tàggat yaram ak gaynde Sénégal ndam lu am na nu ko démb daanaka yéenekaay yu bëri moom la nu xëy kenn ku ci nekk ak na nga cay ndamoo la nga cay nettali sunu naataangoo yi Le Soleil di xam le ne am na ndam ci kaw Qatar bi nga xam ne kon moo dalal pom nit ki nag démb ñett ci benn la nu gagné ñi nga xam ne kon ñoom ñoo di waa Qatar yéenekaay bi di fàttali rek ne ca jongante bu njëkk ba nag réewum Sénégal danoon na rumel woon ci kanamu Pays-Bas ñaar ci benn lañu ñaar ci dara kon lañu leen dooroon gaynde yi nag yéenekaay bi di Walf Fadjri ne nag ñoom fi mu toll ni dañuy wéy di dund ci li nga xam ne kon moom moo di coupe du monde bi ndax nag démb moom daanaka amoon ndam rek wala ñu faxasu ci loole moo ci gën a jege benn sélectionneur doon nag ki leen di tàggat koo xam ne nag moom ci bi mu jàkkaarloog taskatu xibaar yi laataa ñuy amal jongante bi moom nag Aliou ki nga xam ne kon moom moo di doon na rafetlu taxawaay xale yi nga xam ne kon ñoom la gunge seen diggante Qatar nag moom El Tactico mi nga xam ne kon jiitu réew noonu la koy wooyee moom nag ma nga doon wax li jëm ci wàllu ñàkk concentration doon ñàkk teew la gi nga xam ne kon xale mi dañu koy faral di ñàkk ñàkk léeg-léegi seen biir ay jongante stade yéeni kaay ba tey ma nga ca diggante Qatar Sénégal ah, gému rek ne fi mu toll nii Sénégal beneen xar kanam la ca wanawaat équipe bu Sénégal yéeni kaay bi moo xëy di xamal ne daanaka nag xarab nanu ko ci fànn wu ne ah, ci jongante bu njëkk ba démb nag wane na boppam Crépin Diatta Ismaïla Sarr ak ñeneen ñoo xam ne kon yéen kaay bi moo xëy di xam la rek ne lu ñu ci mën di nemmeeku am na ñeneen ñoo xam ne nag jamono ji moom ñi ngi leen di tàmbali di di nga lu ñu ci mën di nemmeeku Sénégal moom nag fi mu toll nii ma ko naka si benn wala ñaar ya ndax nag ñooñee ñooy ñi nga xam ne kon ñoom ñoo a qualifié yéen kaay bi xëy dinu ko nettali ba tey sunu naataango yi di xam la rek ne jamono ji waa Équateur ko ca taxaw nag ñoom fi mu toll nii loolee nag mooy li des Sénégal naka lañ man da mën caa génn yéen kaay yu bëri xëy di xamal ne loole kay daanaka ab final la boo xam ne kon soobu noonu ci te nag egg gunu ci cëppaandaw la diggante Sénégal Équateur loole moom amul sax calcul amul liggéenti am ndam wala ñibbisi rek mooy la fa sës su yëpp xëy di xam ne ne Sénégal kay fi mu toll nii daanaka amatul sañ bañ lenn rek moo ko fa sës mooy rek am ndam talaata ji seen digganteeg Équateur lu ni mooy rek kon ñoom dañuy fab seen ay bagage sa ñibbisi lu jëm ci wàllu coup d'état ba nga xam ne kon xëy nañu ko di ko nettali ca Sao Tomé Principe ki nga xam ne kon moom moo di njiitu mi président Macky Sall Sall moom nag ma ngi koy ñaawloo ko naqarlu lool moom mi jiite Union africaine nee na lu jëm ci wàllu ko coup d'état bi nga xam kon moom la naqarlu na ko lool moom jiite réew président Macky Sall ne nag la mu bëgg rek mooy sarti réew ñuy sàmmonteeg moom li nga xam ne kon askanu ma di naqaru xolam Dakar actu point com yéen bi nekk ci internet bi moom nag ma ca fànn yu bëri bëri na ci assemblée nationale bi nga xam ne nee na ah, jëwriñ ji moom la ñu dénk wàllu ko ndaw li Pape Malick Ndour moom nag ma ngay leeral mbirum ñaar fukk ak juróomi milliards yi nga xam ko ca leeral ba tey yéenekaay bi di xam la rek ne jamono ji kay ñii di député yi ña ngay koomum réew mi naka lañ mën a def luñ ciy jëfandikoo ak fan lañ ko fay dugal ba tey sunu nattangoo yi di eMédia point sn sunu nattangoo yi nag ña amal leneen loo xam ne kon bokk na ci taxawaay boo xam ne kon Sénégal a ngi ko cay taxaw waaye tak leneen loo xam ne kon Afrique ak yeneen ci ay réew bokk na a lan nag moo jëm ci wàllu taxawaay bi nga xam ne kon kii di Aminata Touré moom nag mu ngi ko ca taxaw ne nag luñ ci mën di nemmeeku jamono ji ki nga xam ne kon di nasaraan si ñoom war a rek sàkku li nga xam ne kon moo di ak njéggal li nga xam ne kon moom moo di yenn ci réew Afrique ak jëf yoo xam ne kon dañu ko faral di jëfante ak Afrique ndax nag loolee bokk na ci lool réew yi nga xam ne kon moom lañ ci nemmeeku ñu jëm ci wàllu réeru ko takk der yooyu le yéeni kaa bi di ugfm point sn ma nga yi nga xam ne kon moo bawoo ci njagu njabootu ki nga xam ne kon moom moo di cher Jean Fulbert Sambou mi nga xam ne kon danoo fekk ñu ne mu faatu ca géej ga yéeni kaay bi ne ak njabootam nag seen xel tee na ca lool lañu bëgg rek mooy mbir moom nañu ko leer ab autopsie lañu bëgg ngir docteur mën a xool dëgg-dëgg ñu xam seen mbokk mi di Fulbert Sambou lan moo ko faat yéen kaay bi di xam la rek ne lu ñu ci mën di nimeeku jamono ji ab autopsie dong moo mën a indi ak leeraange gi nga xam ne kon sergent Fulbert Sambou moom naka faatu na ko yéen kaay bi xëy di xamal ne bu ñu sukkandikoo ci kàddu Alex Tabar mi nga xam ne kon kenn la ci nga xam ne kon ñoom ñoo fi teewaloon njaboot gi ñoom nag nekk ca Île Bliss foofee nag ñoom yëkkati nañ seen ay kàddu nee na ko daal mooy seen mbokk mi faatu gi mu faatu moom tey na seen xel lool jekki-jekki ne réer na xëy ne leen faat na gis nañ néew ba loolee doonu lu leen doy lan moo faat ki nga xam ne kon moom moo di Fulbert sunu naataango yi di xam la la bëri na ci lool gi janoona ak wax nañ seen ay dëgg lanu bëgg mooy nag mbirum Fulbert moom nañ leen ci gindi ba mu a leer ci xam ne kon moom lanu ne moom la faatoo ndax naka loolee nga xam ne kon moom lañ teg ci seen kaw moom doyu leen benn yoon te nag bëgg nañ ñu gën leen ci gindi ba tey jeexale ko Dakaractu point com yéen kaay bi nekk ci internet bi moom nag ma nga ca Baye Fall yi nga xam ne kon jot nañu ko jëlee eh, ci ki nga xam ne kon moom moo di xalif général des mourides Serigne Mountakha kon Baye Fall yaa nga ca kaw taaxe di dóor ay martu eh, ñuy xàbbeeku di daanu yéenekaay bi xëy nattali ko nekk ay ndigal lañu jot ngir gaar bi nga xam ne kon mooy gaar bu mag bi ñu raxas ko ba mu set wecc ci li nga kon moom moo taax yi nga xam ne kon nekk nañ fa te waruñu faa nekk lépp ñu setal ko ndigal la lu ñu ngi ko jëlee ci Serigne Mountakha Serigne Bassirou mbokk yi nekk ay ngoog dégg inchaallah UCAB FM li gën a fës ci yéene kaay Papa Saer Mbaye